bëggee ñun li ñoo waxtaanee li ñoo wax mooy a ah, paa yi jeexal na ñun ñoo war a toog nañ jàppalante nekk benn. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne turam ak santam mbooloom fi toog. ñu neen seen liggéey bi rafet na kontaan nañ ci bu baax ndax lii da ngeen ñuy jàngal suñ ëllëg suñ fi jógee suñ njaboot gi niñ leen war a baxee mu mën a rafet te xale yi. nañ di déggal mag ñi mag pakab yoon la de ku ko fër gaañu kum fër nga gaañu ku xee waxi mag ñi it boo liggéey doo fi teg dara lu dul baxi mag ñii toog nii ay boromi xam-xam lañ fañ jàng ci tubaab jàng ci alquran jàng firi lépp xam nañ li ñuy wax ñun tarawumpul leen ci jàng wi ñuy wax ci xale yi ñu jàngal leen yar leen lu war la ndax alquran loolu la dikkee kon nañ xànd nekk benn kët jarga jóob suñ kët jarga la buñ ko jagalee suñ bopp lañ jagalal buñ ko yàq suñ bopp lañ yàq yàqante bi nag kooku moom dafa mel ni ki daanaka soo ko seetee ci jamono la dikkee ndax doomu aadama ju ne bu gëmul yàlla danga nga yàqal koo xam ne joteewul ak moom dara gëm yàlla moo li gën a am solo li ma am yàlla seddu ma ko naa ko doyloo kon duma ma jéem a yàqal kenn waaye su fekkee nag li may yàqalee nit yàlla sedd na ma te waso yee muñ de ñun ñi fi ne ñëpp niroowuñ colaa yi niroowuñ ñuulaa yi niroowuñ xeesaa yi niroowuñ kon nañ dellu ci yàlla lu ñu yàlla sedd nañ ko jël mooy suñ wasak ñu doyloo ko te bañ di yàqante yàqante baaxut dafay indi bàkkaat te lu lay jox bàkkaat waru la koy nangoo jël man fii laay xemale suma wax ngeen baal ma maa ngi nuyu mbooloo mi fi dajee yëpp tey ak kilifa dëkk bi fi teew tey yëpp waa Kër Jarga yow kilifa yi ñu ngi teew tey jotaay bu rafet la am nga kilifa yi jigéen ñi am nga kilifa yu góor yi man nag suma wax ci li ay rajo wax ci laay wax tuuti yàqante bi ci ñun jigéen ñi ndax ñu ñun ñoo ju doom yi man sëy naa ci kër gi kii sëy ci kër gi kii doomam njëkk naa baax man ma ne du ma ko gis lu tax mu war fee am ku baax man waraguma fee am lu baax te yàlla bindoon na man bi kook du naka laa ko war a gisee ndax man su ma ko xañee doom kooku ndax dana ñëw ci suma doom loolu dinaa ko laajte Aïda Diop xam na lu rafet xam na lu baax pour lan mu war koo xam neexul ma dinaa ko xeex ba bam ñàkk ko ndax su ko ay da ñàkki dina ñëw ci man boobu tam mu ngi faa dama bëgg ñu bàyyi wante xel yàlla dafa bind nit ñi ñiy gàtt ñiy ñuul ñu rafet ñiy ñaaw wasa gi noonu lañ rawantee waaye dama foog ne nit ki bu da nga ko war a yaatal ci xam-xamam kontaan ci xam-xamam ndax bu guddee yaatu yoo nga jot ci soo soo kontaanee ci lim xam bëgg ci lim xam rek su yaatoo nga jot ci waaye soo ko xeexee mu ñàkk ko yow du tax mu ñëw ci yow ndax yàlla jagleelu doon la man dama foog ne xeex boobu beeg bañante geeg wax yu ñaaw yi yëpp ñàkk góom yàlla la ku góom yàlla rek nangu dogale yàlla da nga xam ne li Babacar xam yàllaa ko sédd man li ma ñàkk yàlla moo ma xañ ku góom yàlla rek danga jàpp ne lii bi moo xama ci yàlla la jógee ko ñàkk góom yàlla gee ñu lor ñàkk góom yàlla gi daf ñu laal nañ dellu ci yàlla xam ne yàqante bi du ñu yóbbu ci kanam daf ñu delluloo gannaaw ndax xañ naa la ko du ko am bon ci gannaaw lañ jëm nañ bàyyi ci yooyu ñu ngi gërëm gaa yi ñu ni neen bés bii dañ ko tàmmoon ci gër gër di ko fi ñaan yàlla yàlla may nañu ko fi ñu ngee ñaaxante surtout ñun jigéen ñi nañ yërëmante nañ dimbalante nañ jàppalante ndax ñun ñoo ju doom yi képp ko xam te yara ko ko may ni mu yaree woon ba xam ko nga gis fa wëndee sonam bi ci sa kanam la judd woon la judd yar di xam ne nga gis yaree ni mu yaree woon ba yàlla may ko lu baax tarayal dëgg ci tànkam boobu xëy na boo jéemee lim xam yàlla na la ko may waaye xam na man duma ko fekkee xam na suma bët bi di ko gis da nga koy yàq te du ñëw ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di nuyu man Khady Lo Kër Jargi Diop maa ngi nuyu gan ñi di leen sargal di nuyu waa dëkk bi yëpp suñ yaay ak suñu baay ndax dañ daan toog di télé di seetaan ñu neen di leen di ñeetaan loolu kon suñ toogee ba mu indil ñu ko suñu dëkk ñu ngi koo gërëm di ko sant maa ngi gën a leeral waxi aji gaas ji defe naa ne waxtaan wi yëpp ñun jigéen ñi ñoo ko moom suma doom baax na doomi jàmbur du baax wax dëgg yàlla kenn warta too wax ko te ñun ñoom ñoo nekkoon ci kër gi da jàng ko xante coono bu ñun bu ñu xaandee jeexee na xante jàmm buggante fonkante defe naa bu suñ liggéey xàggee yëpp parfait te bon ñun ñëpp dañ kontaan ni ma gis ne moo ko gën a mën a saafaraal daal ci pour yàqante jeex fi ñun buñ toogee nañ da waxtaan ak suñ ñunu neen ci suñu keppaar de dolli xante xel ah yow ma ne doomi ja aji gaas ji de wax dëgg alhamdulilah yàlla dimbale na ko waaye na ko yàlla defal jàmm te may ko suñ njaboot yëpp ah defe naa buñ bokkee xol boobu bokkee xalaat boobu di ko di ko yéen a xaante yàlla mi dara teewul danañu ko may ñun ñëpp te bon bu yàggee yàqante bi dana fi jeex te ba tey maa ngi ñëw si wàllu huutu defe naa huutu xaante daal huutoo lu baax sa morom moo gën lu bon ndax su ma demee ma waxtaan aji gaas jógee fa ñëw ci Fatou Gueye ne ko eh Fatou Gueye tey maa waaru li la aji su wax xam naa faatu bu dee moom ku war a defar diggante bi la dafa war a buur na ma ah yow nag bam waxe pare loo ko tontu su ko defee faatu moom su ma waxee lool xam nga dootuma wéy sax fen danaa tiit danaa jaaxle ndax ba aji gaa waxee tontu naa ko man naa am aji tu tuuti la wax man ma wax lu bari su ko defee su ëllëgee du ma dem si keneen de te moom itamit moom mi ma jógee du xelaat moom def li ma def kon bu yàggee xuutuxante boobu dafa jeex suñ toogatee nañ da waxtaan ci jàmm da wax loo xam ne dafa yar xale yi ci biir kër gi bala ñoo génn ci biti de juum ndax boo jëlee sa doom ci kër bàyyi ko ci lu ko neex su génne xel ci fekkale ci mbooloo mën na laa rusloo fekk yow yaa ko defoon ci biir kër ga kon nag nañ yar suñ xale yi ci biir kër gi ba mu rafet suñ génnee xel fekk leen ci place waa suñ jotaay rafet ñu ngi ko ñaan suñu borom yan nañu ko yàlla may te yéen guddal fan yi mee ñu fan ak wet ak muj te defal ñu jàmm def ko ci réew mi def ko ci mbooleem Sénégal ak Gambie. maa ngee nuyu gan ñi. defe naa yàqante bi fi mu nekk bug bugg bi moo ko waral waa ñun ñi fi nekkoon ca jamono bale ñun duñ tal yàqante ñun booba ñu ngi ci liggéey guddi ak bëccëg yaa ngi dem fu nekk yaa ngi dem ci tool yi boo demee ci tool yi yaa say morom fay ne ba dugg teen bi dañ fi daan nekk ba diggu guddi. ñu ngi fo ñu ngi kaf derrière surtout la malaan yoo xam ne yi yooyu sol muy dem nag di foor sa morom di la xool ñu la ko xeebee booba xam nga yàqante lu bari ndax yow surtout la deel waaye léegi nag li ko waral bugg-bugg bi moo bari moo waral yàqante bi waaye suñ delloo suñ xel ca gannaaw danañ wàññi yàqante yàqante amul njëriñ doom bu judd ci kër njëkk a baax ñëpp dañ baax ñëpp ci ñoom la ñoo roy ku dikk dangaa baax waaye si doom juddoo ci kër de taabu kër war a war a taxawal kër gi ñu yàq ko ba mu gafañ ci taat suuf dara du fa jóg na moo na moo jubee kenn du ko topp kenn du ko seen ku dikk mel ni moom kon naka la fa baax lu baax di nekkee waaye koo kër goo dem mu dem taaw ba baax ñëpp dañ baax foo dem na seetlu leen ko foo dem ka fa njëkk baax xaawa bi dem maawa kër gi sax fu baaxee ku ñëw ci moom ngaa topp kon nañ wàññi buggante bi yàqante bi moo gën a bon ci ñun ci yëpp nag ci ñun jigéen ñi la su sa morom jóg doo jóg xamul jë benn njëriñ kon na nga taraay ngay seet li ñu def ko li gën mooy ñuy seetante lu baax di ko def maa ngi tudd Aysa Njaay Kër Jarga andee man Aysa man wax naa ne nit su amee dara man dama taraay bugg taraay neexlante moom ba am ca lim am waaw waaye man man da man suñ waxee añaa sax man ndax ma dee jaaxal naka la nit mën a amee alalam maqaama ma yàlla jox nit nga toog di ko añaane maqaama mooma hmm? man de man ay sa foog naa ne nit su amee lim am yow da nga war a neexlante moom ba am ca loolu laa loolu laa yaakaar yàqamte bi wax na dëgg la ndax danga de gis nit de sëy ci kër nekk wujjam ñu ànd lool am ñoo xam ne mel ni asta soxna su ñëwee ma yow diw gis nga koom niñ ko falee ci kër gi niñ ko def ci kër gi lu ne ci loxoom te yow xamula lu ne ci loxoom sax xamula moom moo xam da ko fa ësi de ko jox jëkkëram yow xamula yaa ngi bugg a yàq foofu hmm? su jëkkër jamee leen ibu juuf ne aha léegi li nga wax dégg naa ko diw mi programme am danaa ko yàq te fekk yooyu yàqoo ko hmm? sa bopp nga yàq ndax ki yàlla jal taal ba yàlla nara taal ah su su nekkee ne yàlla taal booba taal na ko tam mënuloo si dara il faut mu am bon nag nañ de bàyyiante xel ci jamono ji léegi ndax léegi xale yi gis naa ne xale yi léegi